clinique léegi dañoo war di yokku TVA ci faj bi ñuy def ñeel wàllu hospitalisation wu maladie ak it ni ñuy joxe néeg yi wala lépp lu aaju ci gën a ñoŋal lu ni mel clinique yi nag mënuñu ci dara ci gis-gisu docteur Oumar Konaté. ben nu mu demee lu simple la c'est-à-dire euh, état moom moo ñu imposé moom moo tegaat ci table bi taxe dix-huit pour cent bi ci hospitalisation yi léegi ñun. Euh, Euh, ay intermédiaire nañu rek ñun dañuy récupérer taxe yooyu reversé ko à l'état euh, IPM yi après ñoom ñooy fay assurance yi ak malade yi nga xam ne moom ñooy yore cash ñoom ñooy fay fay maintenant taxe ñun dañuy dañuy récupérer xaalis bi rek ñu reversé ko à l'état naam njëgu hospitalisation yi yokk na waaye docteur bi jàpp na ne ba tey dem ci clinique yi moo gën a yomb dem ci établissement public yi. ñun qualité bi ñuy servir nit ñi euh, loolu moom moo tax nit ñi di ñëw ni ñuy gaawee tamit pour euh, prise en charge pour euh, toppatoo maladie ni ñu gaawee dans le privé temps bi nga xam ne tamit nit ñi dañ koy def ci privé bi donc loolu yëpp dafa am coût donc loolu moo tax là actuellement je peux faju ci privé bi. moom moo euh, gën a paju ci ci ci public bi. ñu dakkaloon ko ci atub ginnaaw ba ñu dooree ay waxtaan bile mesure ñu boole woon ko ci exonération sociale yi loi bi ñeel finance 2023 daal dina koy dugalaat lu ni mel nag jur ci téeméer boo jël fukk yoo xam ne dañu koy yokk ci njëgu hospitalisation yi waaye paj gi moom boolewuñu ci TVA yi.